نحن أمكم غير ما يروج فسنفا وأمكم غير ما يروج من سما خمون دليل ما يروج سرين فان فان جميع رام سرين فان ورسول jumuji duma doyal ci moom ki mooy chéri mami mari kii mooy mbokkum jaam mbokkum yaay mu ngoone mbokkum yaay awa faal mbokkum yaay ndey faatu faal daga jaareem sëriñ Fallu mbokkum yaayu mbokkum yaayu moomi moomi moomi moomi juriya mbay yaasin saago afam si mbira gooro sëriñ Faal jogo yaaram su doyul moo tolli Kripur Mabur Angkor Syarif Alay Zaman Teman Jogur